jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen rajo waaye baax a baax tey nag ñoo ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Thiatou Yoff depuis combat moom Youssou Ndour ba léegi génnaatagul tey nag mu ñëw fi ci open press rakam open press xaritam open press boy Thiatou maa ngi lay fay Ousseyn di la ziar xam nga di nuyu waa Yoff di nuyu waa Ngor xam nga di nuyu dëkk Lébu yëpp maa ngi leen ziar bu baax di leen wax nu ñaanal suñu booy bi yàlla mu dafa ko ndam sedd ku nekk li mu wax loolu lay jëf. non booy moom mën a wax quoi mais yàlla may na ko kattan xam-xam quoi. mais nag ñoom ñaar ñëppay wax ndax bu caatu yoo waxee eh, bi bi caatu waxee Siteu bu Ngor tontu na. waaw c'est normal parce que nit ki boo da ngay fayu ñun ne ay lébu lañ ku ñu doon fayu mooy loolu. naka nga gisee sa waay. Siteu waaw comme dab rek moom moom bu amee combat day liggéey quoi ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm xam may ka ndam mu see bëre na xeex na mais amu ci amul amul daanu bu wóor nga gànn si te bu daanu rëbës gis nañ combat bi passé da cee daanu combat bi mu ñëw war a confirmer naka la war a bëre. mais si te jàmbaar la moom xamul ko xamul ko jógee si defet xamul ko jógee si victoire moom jàmbaaram foofu la koy yóbbu ñu ko ñaanal yàlla defal na xelam nekk si jour bu suba rek allah est-ce bi laaj na xeex laaj na lépp parce que moo sut quoi moom moo moo prolonge man ma mu xeex ba pare soo bëri quoi. mais est ce que sut bi dara la ci tamit. non dara la si waa avantage foofu la quoi. fan nga toll booba léegi defe naa bi nga amee ndam ba léegi euh, kenn déggaatu ko la fan nga toll. waaw maa ngi waaj ana sumay mbokk rek di xaar combat doo gars yi jël sama avance nag. yan gars yi ay ay ñàkk a jaruñ xam dafa fi dara dañoo mu ñëw mu dóor ko mu daanu mu yàgg. dafa fi dara dañoo dañoo avance ñàkk a neex la bilaay. Baadu Youssou Ndour mi nga doon mu daanu moo tax nga bëgg a jël ñàkk a jël naa ne léegi ñu jàpp ma léegi ñëw ñëw yow a ma pour dina police quoi parce que booy dama leen rey moo tax billaay. ah bu ma a léegi léegi sax ko bu ñu boole avance bi ne avance. dina ba avance yàlla xam na loolu. la moo tax nga ne booy bu ñu la bàyyee ñoom da nga leen di rey. booy maa man billaay walaay taalaay booy soo bëree wane gu ma barke sëñ Bamba ci kan nga ko bëgg a wane si a yi ay Zarko ay Modane ay Ñaxa Jari yooyu laa bëgg a wane suma suma suma talaa quoi. wax la ñoom ñoo ngi lay seetaan. Zarko Ñaxa Jari Modane ngir yàlla kaay leen ma ma ma ma bànneexu si yéen quoi mooy loolu